ki dellu nuyu leen rafetlu waxtaan bi ak télévision Futur Média doore ko rek ak zone franche industrielle ñi nga xamante ni ñoom ñoo fay liggéeyee ca boor yooye jamono ji njàqare tar na ca ñoom ay entreprise lañu ñu fa war a yëkkati ndax zone boobee cib euh, loi bi lu mu wax kon foofe gaañi fok ñu jokk ca béréb ya ñuy xëye ko gontu nag foofe loole dalatul seenum xel ngir ñëpp xam ni jaaxle nañu toogaanu ñaxtu lañu xëyee Maodo Malick Gueye yi ñu ca dénk seen kàddu màddu ci ci micro seenu Thiam. liggéey ci zone France baay bi moo jeex jeex na depuis 31 décembre 2016 mais ba léegi état bi waxagul ci ñun dara nangoogu ko prolongé. nekk mooy dañu wax état bi nag ne ko nañu prolongé baay boobu parce que ñu ngi ak mille personnes ñoo xam ne seen ginnaaw am na yeneen entreprise yuy liggéey ci ñun. ça veut dire lu mu gàtt gàtt dama dix mille personnes yoo xam ne ñu ngi liggéey ci affaire boobu parce que sept entreprise la sept entreprise yoo xam ne ñu ngi liggéey ci zone bi. buggul liggéey ci perte te patronat bi mënul investir ñoo investir ci xaalis ubbi ay entreprise def ci ay milliards war a gagner dara pour ñoom ñu ëlbateeku di perte duñ ko def li ñuy def rek mooy après dañuy fermer société yi jël seeni bagage dem feneen. mangook kon waa zone franche ci mbedd mi ngir ñu bàyyi leen xel euh, mbedd moomee rawatina route nationale numéro 6 euh, ma ngay indi ay jafe-jafe ña dëkkee ca boor yooye ñetti at ci ginnaaw liggéey bi waroon na jeex boobaak léegi nag dara moo ci tax accident yi gën na bari boor boobee am sax ñoo xamante ni dañu cay ñàkk seen bakkan boobee situation arrondissement bu ñagi askan wa ne nañ doyal nañu ci wit ñeent fukk ak juróomi wilaas ñoom it wàcc nañu gannaaw ba ñu dajee ak waaye taskatu xibaar li euh, wax la leen naqari ngir yooyee liggéey ñu wàggale ko Alassane Ndiaye moom it ma wax ci seen toro ci micro Boubacar Dia si caméra Lamine Magnon bi ñu ne tali bi dañ koy defar ñun ñëpp dañ cee amoon bégte ñu ne américain yi financé xaalis bi boo léegi man na euh, ñeenti at ñeenti at yooyu tali bi manta pare mu ngi nii bés bu ne mu am ay accident accident yoo xam ne ay bakkee na ceroon loolu mënuñ kaa nangu te barrage bi nekk barrage yi Guidel gii barrage yi Guidel gi camion yi fay jaar ak bus yi oto yi diis yooyu defaruñu ko pour loolu barrage bi depuis 78 lañ ko defar te kenn toppatoowu ko bon loolu suñ ko bàyyee nii ñu koy seetaan dina am bés boo xam ne dina fi andi jéey joo xam ne du ñu am dara lu dul suñu bët yi pour jooy loolu duñ ko nangu balaa ña cay yegg nag ñi wax ak nguur gi nit ñi nag ñun ñoo leen téye bu ñu génnee ci diggante boobu xam naa suñu baare suñu marchul dañuy baare tali te balaa ñu cee yegg ñun ay kilifa lañ du ñu nangu loolu moo tax ñiy wax ki nga ki ki nga xam ne moom lañu ñu war a waxal mooy nguur gi suñu déggee salaam suñu déggul nag nit ñi ñun duñu leen mën a te bés bu nit ñi di dox na dinañ ànd ak ñoom dox bu ñu noppee population yi ñooy wax te seen wax yi bëgguñu ñu waxee noonu loolu moo tax ñu ne leen ñi taaxiru ñu may ñu ñu wax ak euh, nguur gi ñu wax ak réew mi su ko réew mi déggee wasalaam su ko déggul nag wasalaam waaye ñun li ñu war a def def nañ ko mooy wax ak askan kon euh, yoonuk ñagis ñeent fukk ak juróomi wilaas euh, wàcc naqarlu tali boobe fa yeggul di leen indi li jafe-jafe brigade mobile bu douane bu ndara euh, ñoom daal di nañuy kon teg loxo ci àllarba ak tey ji juróomi nit ñoo xamante ni dañoo yoroon marchandise bu ñu mënta jëfandikoo bu indi ay loraange ci askan wi daal di koy tas ci ñaari kon woto ñoom ñooñee kon teg nañu leen loxo ba jamono ji ña nga leen garder à vue fekk waxtu yi ñuy dëgmal danañu xam nan lañuy mujjee ak seen situation lieutenant Abdoulaye Diallo bu subdivision des douanes bu euh, saint moom euh, moo ca waxtaan ak euh, Ousseynou Diop wax ko fan la yëf yi na mu demee ñu teewlu ay kàddoom. donc tey si lañ xëy contrôler ñaari oto fekk ñu nëbb si bu bare boo xam ni mën nañ ko xayma si junne ak téeméer ak juróom benn grosse. boo xam suñ ko xaymaa si xaalis dina toll juróomi million ak euh, juróomi téeméeri junne ak juróom benn oto yi nga xam ni tamit ñoo ko yaboon naturellement dañ leen di boole si mbir mi ñoom ñoom ñaari oto yooyu mën nañ leen estimé si juróom-ñaari million ak genn wall su ko defee saisie bi day doon saisie boo xam ni day day porté si fukki million ak ñett yu teg juróom benn junne ñi nga xam ni jot nañ leen si teg loxo nag juróomi nit lañ ñett ñi ñoom ñoo moom bagages yi yeneen ñaar yi ñoom ñoo moom oto yi donc ñoo ñoo leen doon transporter pour yóbbu leen Dakar. ma wax nañ leen ko ci ndox ndorteelu xibaar yi gaa ñi doon nañ ko déglu ne woon na kon dana wax euh, fan la jëm xëy na janoo ci ak waaye taskatu xibaar yi Thierno Alassane Sall gannaaw kon ba mu daal di ba ñu ko génnee ci gouvernement bi moom moomee ca yoroon wàllu énergie xëy na leeral kon ni génn na euh, APR moom daal di naqarlu nag euh, doxalin wi nga xamante ni président Macky Sall kon moom lay doxalee mu ni ca mu sukkandiku woon ñu gëmoon ko ba taxawal APR APR la mu jàpp moo di jamono ji moom ma seen patron parti jëfewu ko ba tax na kon daan na jël dogal moom it génn ca wiccax ca loxoom ba mu set mu wàddu ci micro Cheikh Anta Diop. Sénégal dama leen bëggoon yëgal ni que ci tey démissionné naa ci alliance pour la république parti bi bañ koy sos di ko laloon mooy mbooloo dajale boo xam ne ànd nawle la. ngir liggéeyal askan wi ak réew mi li ko laloon mooy jéem a yeesal li fi newoon te ñu jàppoon ni baaxul ak euh, yëkkatiwaat démocratie ba mu jëm ci kaw waaye ku gis ni réew mi di demee xam ne alliance bi nekkatul ab alliance ngir jëriñu réew mi waaye pour renouvellement wu mandat kenn nit kese la ku gis ni muy réew mi di demee fan yi surtout ci processus électoral bi diñ ci gis yu yéeme yoo xam ne ku ne war na ci am taxawaay bu leer ndax bu ñu seetaanee ñuy jënd ay électeurs comme ñu ñu jëndee marchandise processus électoral boo xam ne 1960 ba léegi ay jéego yu jëm kanam rek moo ci am mu dellu ginnaaw dellu ginnaaw bu metti ñun ñëpp xam nañu lu xew fan yi te dara waralu ko lu muy fexe pour APR des ci pouvoir bi lu gën a yàgg ñun nag lu mel noonu waruñu ku nekk am taxawaay bu leer nañ ndax ñu ñoo fi woote woon dekkal ngor ñoo fi woote woon la patrie avant le parti kon valeur yooyu nga xam ne moom moo taxoon ñu ànd ci politique moom moo taxoon ñu dugg ci politique ku nekk ci ñun war na sàmmoon teg loolu sàmmoon teg ngoroom sàmmoonteeg ngorom sàmmoonteeg dignitéem teg euh, euh, dëgg te wax dëgg rek gis ni que opposition bi ci boppam liste am na ñu nekk ci seen i liste di ay list concurrente saa yu ne ñu gis ñu leen di roñal di leen toxal di yóbbu feneen loolu ku nekk ci réew moo xam ne dañuy woote ngor ak dignité war na am taxawaay bu leer bu ci am moo tax tey jii nii ma am sama taxawaay bii di wax ni nag li ñu taxoon a jóg du pour APR du pour kenn pour Sénégal la tant que Sénégal soxla na te jàpp nañu tey la Sénégal gën a soxla tey la ngor gën a manqué tey la dignité gën a manqué tant que Sénégal soxla na war nañu taxaw li continuer di liggéeyal Sénégal moo tax ñun ak ñu ñu àndal ci fan yi ni néew dinañu woote woon leen ni yoon bu ñu xàll boo xam ne beneen yoon la pour continuer wéyal suñu combat bi nga xam ne combat wu Sénégal la du pour combat wu kenn ñu leen gërëm di leen sant wasalaam. maa ngoog ci déclaration Thierno Alassane Sall kon doon janoo ak waaye taskatu xibaar yi wax kon euh, na mu doxalee euh, kon génn APR ay te dellu si ci li ko lal euh, ni mu ko waxee dekkal ngor patrie avant parti yu bari ñu gëmoon ba tax kon ñu taxawal APR tey gisatu ca boppam ñu dellu si kon ñu tourné ci gan gi Khalifa si Diagne psychologue conseiller wax nañ leen ko ci doxalin yi ci wàllu politique Khalifa ma dellu nuyu la. maa ngi lay fay ngoone di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan. Euh, ñoo ko seetaan seetaanandoo ci Thierno Alassane loolee mu jàpp ni tey jii moom moo wund kon euh, décision euh, ci ci wàllu ngëm-ngëm boo xamante ni kon amoon na ko gis-gis boo xamante ni xëy na taxoon na mu dugg ci APR mu dem tey jii ba gisati ko askan wi tam ci lu bari loo xamante ni ñu ngi koy gis ci doxalinu ko waaye politique yi rawatina yow tey jii boo ko doon jàngat rawatina ci li mu indi léegi ci ay kàddoom noo ko gisee la ko taxoon a jug ci wàllu ngëm-ngëm nekkatu fa ba tax na. na euh, bàyyi na fa. waaw Ngone euh, bi ma gisee Thierno Alassane Sall wax li ma jàpp mooy génnam dina metti lool ci APR dina metti ci APR parce que moom dafa bokkoon ci ñu sosoon parti bi e nekku ci woon ku ndaw ndax moo jiite woon seen cadre yi maanaam bànkaasu ñiy xalaat ci parti boobu ba pare amoon fu mu nekk ci Thiès et même ñi nga xam ne ànduñoo ak moom am na loo xam ne reconnaître nañ ko ko. jàppal jàppewoon nañ ko ci homme politique sénégalais yi nga xam ne mën nañ jàpp ne ñii kat xamaluñ leen jombe léegi nii bi may ñëw sa émission maa ngi dégg Moustapha Cissé Lo mi nga xam ne ci ñoom la bokk. Mm-hmm. ñu xamee ko wax li mu xalaat di seede seede bu rafet ci moom. et loolu bu amee euh, mën na indi ay jiixi jaaxa ci xelu sénégalais yi parce que bu fekkee ne nit dafa dem ci ay mbiru jub ci ay mbiru valeur ci ay mbiru principe rek day jaxase xelu. Euh, Sénégalais yi et loolu day nekk loo xam ne du nekk lu baax ci parti bi nga xam ne fala bokk. ndax euh, li nga xam ne am na mooy Sénégal fi ñu toll nii li askan bi gën a ragal ci homme politique mooy ñàkk njubam xam nga en psychologie am na lu ñuy wax profil type maanaam li nga xam ne moom la ñu mën a bindee nit ki nga xam ne dafay nekk ci politique bi et boo xoolee Sénégalais yu bëri profil tubu politique homme politique bi. Mm-hmm. mooy koo xam ne jubul koo xam ne du wax dëgg koo xam ne intérêt boppam moo ko tax a jóg koo xam ne lim lay wax bu faloowul bokkul ak la muy def bu faloo koo xam ne dafay bëgg lu gaaw a gaaw am alal yoo xam ne kenn du mën a justifier moom fan la ko jëlee wala yi muy yëngu du ko mën a justifier koo xam ne aussi day jàppee askan wi comme koo xam ne moom moo leen gën a muus. mais est-ce que tam xalifa du du ñoom xëy na ci seen i jëf ñoom ñooy euh, dëggal askan wi gis-gis boobu ñu ci am parce que da gis ni euh, andi démb ya tey ji euh, xëy na poste bi day tax ngeen yàkkamte lu mel ni xeme wala la nga daan bañ démb nga ñëw nangu ko tey ka nga daan xarab démb tey moom ngay tagg loolu dafay doy waar quand même ci ci ñi dañuy dem ba finalement démb ak li am tey de dafay dafay jafe. muy dëgg ma kool na ci profil bi c'est parce que ñoom amuñu gëm-gëm amuñu gëm-gëm ci ñoom ni ñuy fonctionner genre groupement d'intérêt politique la ba tax na lii tax ñu ànd wala ñu bañ a ànd. loolu day nekk lu laaleeg seen intérêt politique gu tey sa à seen intérêt politique du, moment loolu tax di nga gis ñaar ñoo xam ne demoon nañ bañ na ñii ñoo raw mburoog soow mhm. bu changement amee da ngay gis ñuy ŋàññante président Ablaye Wade am na ñoo xam ne bi mu yoree décret yor pouvoir yi am na ñoo xam ne ñoo gënoon sës rëkk ci moom am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko doon yoral kàddoom am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko doon euh, euh, taxawal ci presque buntu néegam ñooñu léegi anañu et lenn rek moo changé mooy pouvoir bi mu yoroon yor décret yor caisse noire loolu yoratu ko am na ñoo xam ne aussi bu jàkkaarloo ci diggante nguur ak opposition dañuy ŋàññante bu demee ba changement de régime am ba ñoom ñu jàkkaarloog beneen régime bu fi nekk beneen nguur gu fi nekk bu fekkee ni ñoom jàpp nañ ni bu ñu lëngaloo mën nañ daane régime bi fi nekk du ñu xool li nga xam ne opposé woon na leen ci passé bi mm-hmm. ñoom li leen di yitteel mooy nan la def ba daaneel kooku looloo tax parti politique sénégalais yi amuñu idéologie amuñu valeur amuñu principe li leen yitteel mooy intérêt politique du moment et loolu moom ci lañ nekk moo tax euh, bu ma doon caractériser homme politique damay wax ni manipulateur la manipulateur dinañ ci dellu si waat euh, Khalifa Ababacar Diagne psychologue conseiller ci ci wàllu njàngat loolu euh, laata loolu sax xalifa daaf ak direction générale ci jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy euh, dundu rawatina ci yoonu élection yi nga xamante ni jëm nañ ci retrait carte yi fañ la toll daan nañ ci kon janoo ak waaye taskatu xibaar yi Ndakaaru nag moom mujj ci liste bi bu ñu doon xool li ñu fi retiré ci ay carte moom moo féete ca suuf gox bu demee ni Kédougou Malem Hodar foofee téeméer yoo jël nee nañ gàtt gàtt juróom fukki ak lu tekk nañu seen i carte di saprera Younous Diatta fan rek dox suñu digg ak élection yi waaye Dakar bokk na ci région yi mujj ci njëlum carte électeurs yi ministère de l'intérieur ci app xayma wane ni Kaffrine Sédhiou ak Mbacké téeméer boo jël lu ëpp juróom-ñetti carte ya seeni borom retiré nañu leen DGE xam ne tamit na ci 5 millions 379 mille cartes lu ëpp 3 millions seeni borom jot nañu si. ay jéego yu am solo tey ji nii juróomi junni ak genn wàll génne nañ ko ci wàllu carte te ñu ngi continuer di génne fii ba bés bi jiitu élection yi alors loolu nag jottali nañ ci juróomi junni ak juróomi million ak ñeenti téeméeri junni direction générale pour mu dem ci préfecture yi ak sous-préfecture yi bu ñu xoolee euh, nit ñi retirer seen carte maanaam ñi dem jëli seeni carte jàpp nañu ne ñetti million juróom benn téeméeri junni jot nañu seen carte élection yi di gën di jege ministère bi xalaat ne faw rek ñu accélérer rythme retrait carte yi looloo tax autorité bi taxawal ay pexe léegi citoyen bi mën naa dem jële kartam ca commission de distribution ya wala ca préfecture d'accord nañu ci lañ daan def bu njëkk maanaam dajale carte yi ci préfecture yi ak sous préfecture yi ñu jël carte yi léegi jegeel ko lieu de vote yi nga xamee ni bésu vote bi foofu la nit ñi nar a dem voté ji ku nekk xam na fa nga bindu woon ne fa nga bëgg voté ji donc mën nañu jàpp ne léegi carte yi yóbbu nañ ko ci lieu de vote yi donc sénégalais bu bindu woon Dakar te war a voté région de Dakar mun nga dem ci sa lieu de vote moo xam département Dakar la moo xam département Pikine moo xam département Guédiawaye moo xam département Rufisque koo xamee ni aussi da nga bindu woon Dakar mais da nga war a woote ci biir région yi mooy lu ñu doon wax compétence nationale maanaam yombaloon nañu ba nit ki fu la commission romb rek mën nga fa dem bindu mais nga wax fa nga bëgg voter donc am nañu bindu dakaar te war a voter ci biir région yi ñoo ñu dañuy dajale seen carte ci préfecture yi moo xam préfecture dakaar la wala préfecture Pikine wala préfecture Guédiawaye wala préfecture Rufisque. ci lu ëpp 200 000 cartes yu sénégalais de l' extérieur ministère de l' intérieur nee na amagu benn xayma ci wàllu retrait yi waaye xam na ne tamit ne ndefarum carte yi dina wëy. ba veyu élection yi. ci ñaam ñaari carte nag recteur automatisation fichier jàpp na nii loole du ca dara xëy na euh, ci tiirage bi rek euh, moo am jafe-jafe waaye loole du tax ñu mën a wotee ñaari yoon Ibrahima Diallo leeral kon li waral waruñu ci am benn njaqare. ñaari carte d'identité euh, li ci li ci mën a doon problème mooy nga am ñaari carte d'identité yoo xamee ni dafa wuute maanaam mu am ay tur yu wuute wala ay ay date de naissance yu wuute wala ay ay numéro carte yu wute mais li ñu gis te ñu wane ko ci nit ñi gis ko mooy benn nit bu ñu tiireel ñaari carte alors li ci wuute ci ñaari carte yooyu mooy peut-être numéro série mu ngi mel ni tey nga ne génne naa carte bu njëkk génnewaat naa beneen muy ñaareelu carte loolu warul am mais euh, comme liggéey nit la liggéey nit toujours day am possibilité nit ki juum mais li ma wéral mooy ñaari carte yooyu amul dara lu ci wuute mu ngi mel ni man tey ma dem defalu ñaari carte wala ñetti carte wala ñeenti carte mais information yi ci nekk maanaam sama tur sama fu ma juddoo ak kañ laa juddu loolu dara du ci soppeet ñaareelu carte bi génn rek dafay génne numéro série mais du doon numéro carte bi parce que numéro d'identification nationale bi du changé ci wàllu carte yooyu ak retrait bi fu mu toll ca commune euh, bu euh, Ngor foofee lu toll ci ñetti commission kon ñoom ñoo fa daal di nekk jàpp nañu yëf yi euh, taxu ko fa dox xëy na bis bu jot juróom fukki kart ak lu teg kon la fa gaañi di jaara di ko jël si ci carte kon na d'identité biométrique yooyee ñu xëy doxoon tuuf ak suñuy ndaw xamante ni moo di Fatou Bintou Conté moom moo fa ànd ak Thierno Laurent Mendy des na dellusiwaat ci élément bi jamono joo xamante ni tête de liste coalition yeesal euh, ca tournée bu mu doon def ca département bu Pikine mi ngi sàkk ci ministre de l' intérieur mu taxaw euh, jéggalu ci kanamu askan wi yëpp te convoqué dar dar opposition bi euh, ci ndaje Modou Diagne Fada ci micro Salif Sow Asmalik Diop. wër nañu ko wax nañu ko nit ñi dégg nañu ñu maintenant lii nga xam ne moo xew barki démb wala moo xew tey muy. sollicitation président de la république jëmale ko ci conseil constitutionnel dafa nekk lu nga xam ne xel mënu ko nangu ndax loolu daf dul sàmmante ak loi électorale daf dul sàmmante ak code électoral dafa nekk lu nga xam ne dafa doy waar ñu gis ne lii ñu waroon a def tey mooy ministre de l'intérieur mu présenté ay excuses publiques peuple sénégalais ne maa ngi leen di jéggulu parce que nag bi mi song opération bi ñëpp nee nañ woon du mën a àgg moom mu ne mën na àgg mën nañ defar carte yi mën nañ ko joxe à temps gis nañ ne loolu moo waxoon nekkul kon na présenté ay excuse am population yi ñaareel bi na woote daar daar fekk suba ay concertation ak parti politique yi ngir ñu saytu mbir mi seet nan lañ ciy demee ci jàmm ak consensus loolu rek mooy solution parce que reporter élection dafa nekk lu nga xam ne kenn xel xalaatu ko nit ñi dépensé nañu liñ amoon na ko si néew na nu Sénégal ñoo ngi doxal juróomi fan ci des mënuñu ci dàq ay élection na woo acteur politique yi ñu waxtaan ñu seet ba xam daañu mën am consensus. ca wër googu Sénégal moom démb ma ngi woon ci mbedd la bëggoon waaye gaañe mujj ñu ko ca bàyyi mu mujjee ci déclaration Cheikh Tidiane John Pape Sangone Mbaye marche avortée bu maître Abdoulaye Wade Pape di soppi bi gis ne régime bi ñoom dañoo tiit ba pare daal di ciy teg ne ñoom dañoo affolé maître Wade gis ne sortem bi succès kese la. tey comme marche bi amul euh, dañoo dem daje xaw ma policier lañu xaw ma gendarme ñu ne ñu ñu baare ñu du ngeen fi ñuy wax même tourner suñu oto pour dem ñu nu ko prévoir woon bi parce que bii dañoo daje ñun leader yi ñu ne waaw léegi noo ngi def marche marche am nañu ci droit waaye su ma suñu demee nag daje dajeeg ay force Euh, ñu euh, ñi may wax ni euh, may tuddee les forces de Macky parce que c'est pas des forces de la République parce que moom moo leen di utiliser c'est pas la République qui les utilise nu ñuy def ñu ne dañuy wàññiku su ko defee dañuy wàññiku policier bi nu arrêté war na ni du ngeen jaar fii fii ngeen di jaar foo mun nu wax nu jaar foofa ñibbisi lii lu nu décidé woon la nekk na donc mbir moo xam ne nu amul ruusunu ci dara. maître Abdoulaye Wade moom tamit daal dinay addu ci élection yi nga xam ne ñu ngi ko war a amal dimanche bi ñu dëkkmal moom mu gis ne ordonnance bi nga xam ne kii di président de la république moom jot na koo def loolu disposition bu yàgg la. ñun xam nañu suñu responsabilité. moo di fexe ba nit ñi mën a wote parce que xam nañu bu ñu ñuy wote Macky Sall dana fi jóge. donc ñun li ñuy wax dafa leer. gannaaw ba mu amalee ab tournée ci biir réew mi maître Abdoulaye Wade fas yéene dem Fatick laata campagne électorale bi di jeex. Fatick ba ma fa demee wax naa leen ko démb dama ruus mësuma gis mukk dëkk bu fënaxe noonu dëkk bu salte noonu dégg nga ma mais c'est rien ñun bu ñu dellusee wallaahi man danaa plaider pour gouvernement bi fii ne du man de man du ma ci bokk moom waroon na ruus. dugg dem ci Fatick di dox foofu di gis euh, baraag yu fënax yooyu de euh, di gis tali tali yi ñu fa defoon sax amatu fa parce que amul entretien. rue 28 John perce daal di nekk ci Fann résidence mbooloo mu takku ñoo fa ñëwoon daal di gunge si ki nga xam ne moom mooy maître Abdoulaye Wade mu nekkoon nag ay militants ak ay sympathisants ñoom li ñu bëggoon rek moom mooy participer ci marche bu ni mel. mu nga ko maître Abdoulaye Wade démb ci déclaration am dellusi na ci juróom-ñeent fukki at ak benn yi am ak it euh, gis-gis soo mu ca am euh, rawatina yëngu-yëngoom yi ci wàllu politique li la ci wax. ñun amuñu benn complexe de l'âge dégg man j'ai ans et je suis fier d'être d'avoir ans dama koy crier ba ñëpp dégg ko dégg au contraire su ma mënul leur dire qu'un grabataire d'accord xëy na mais je ne suis pas dans ce cas alors donc euh, et Afrique dañuy respecté mag ca jamono bu njëkk ba boog man la ma xam ne moom laa jàng la ma sama papa jàngal en France sa baay day màggat wala sa ndey nga jël ko sànni ko ci benn asile boo xam ne yow da ngay joxe xaalis doo ko gis doo ko dégg xam nga tubaab yi parfois ils sont pas rationnels c'est eux qui ont inventé Descartes mais ils sont pas rationnels parce que c'est pas le problème de l'âge par ailleurs ñoom dañuy wax ni on a l'âge de ses artères gis nga ñu ne sa sa at say at mooy say ati sidit la sa sidit man loolu mooy say at du at yi nga dund kooku amul benn solo man sama ñi <laughs> sama ñi ma ñi ma ñi ma bokkal euh, li li mu at ñëpp maa leen man <laughs> ah, <laughs> te ñu ngi may dégg ko koo ci yaakaar ne mënuma la rek nga ñëw fii nga ko euh, maître Abdoulaye Wade euh, Khalifa euh, Ababacar Diagne dellu si yow kon psychologue conseiller di la dalal gis nga ko maître Abdoulaye Wade ci langue politique gi jàkkaarloo ak Macky Sall mi nekkoon premier ministre am Barthélemy mi nga xamante ne xamoon nañ digganteem ak maître Abdoulaye Wade taxaw solo ko rob ci yëngu-yëngu mu ci am Macky Sall Khalifa ci kon li leen boole ñenn ñi jàpp ni politique la ak ambition bien que ñi gis nañ ci wàllug yoon lan moo tax ñoom ñu jàpp ni ci wàllu woowu xëy na suñu doxalee woon neneen xëy na du tee ñu jot ci nguur gi wala ñu yàgg ci mais faw euh, xeex beeg laale bi am dem ak dikk bi ci ci ci ci langue gi. waaw euh, xam nga comme ni ma la ko waxee sànq parti politique yi ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiite ñoom seen intérêt politique rek la ñuy jiital ci lépp loo xam ne dañ koy jël wala lépp loo xam ne dañ koy sumb pour def ko. askan wi yëpp xam na ni ab Ablaye Wade ak Barthélémy Diaz amoon nañ contentieux bu lourd ndaxte Barthélemy bokkoon na ci ñi ko gën a xeex pour mu ñàkkoon nguuram bi mu koy xeex moom ñoom Macky Sall ñoo ci àndoon bu ñu fàttalikoo sax mi bi mu defee mbiram moomu euh, ba ñu jiiñoon ko ni moom moo faat bakkanu Ndiaga Diouf président Macky Sall comme moom moom àndoon demoon na fa ba seedeel ko ni li mu def loolu la waroon def il était innocent après gis nañ bi Barthélemy amee jafe-jafe ak président Macky Sall ni mbir mi demee ba sax yóbbu nañ ko ba ba ko léegi actuellement données yi dañoo changé. dañ ko jàppee ñoo ko solaloon rob biñ ko. Euh, biñ bi ñu leen xëy na bi coow li tàmbalee. ñu àndoon ak moom mm-hmm. bi coow li di tàmbale. bi ñu demee ba àndatuñoo moom ñoom ci boppam bokk nañ ci ñi ñu jàpp ne ñoom ñoo yëkkatiwaat coow li ndax moment boobu xëy na posture Barthélémy Dias arrangé wu leen. Euh, président Ablaye Wade aussi bu ñu fàtte ni moom moo sababoom euh, moo sababoon coalition bu mag bi nga xam ne mujjut a sotti. moo nekkoon coalition bi waroon boole manko wattu Sénégal ak manko taxawu Sénégal. Mhm. ñoom jafe-jafe ki doon jiite liste bi lañ doon am. Mhm. ça veut dire que ñoom entente bi amoon nañ ko bu yàgg. et ñoom boo seetloo même bi coalition bi éclaté ay ñaari coalition yu jegeyantoo lañ. Mhm. gis nañ avant Barthélemy Diaz maître Abdoulaye Wade bi mu demee ci côté plateau Bamba Fall ci boppam dem na gàttandu ko ba tatagal ko. ànd ak moom gunge ko ba bokk ak moom lépp. ça veut dire que en souterrain ñoom am nañ alliance boo xam ne ñu ngi ko garder en en en mémoire wala ñu ngi ko garder ci benn benn coin ñoom li leen yitteel mooy nan la ñuy def ba jëlee fi ñi fi nekk. peu importe li nga xam ne boole woon na leen loolu yëpp fàtte nañ ko. et loolu li koy waral mooy ñoom teguñu principe yi ak valeur yi ci kanam ñoom li ñu jiital mooy nan la ñuy mën a lëkkaloo. ba jëlee fi ñi fi nekk. mais yow mi sax xam-xam boo seetloo bi alternance 2000 bi amee ba léegi. noonu la Sénégal di fonctionner. mais yow mi màcc ci wàllum xel xëy na dinga ñu ci ginni ci ñoom li ñuy wax tey jii euh, ñu bare bu ñu leen tegalaatee seen i kàddu yow da ngay yéemu ca la nga doon wax démb yenn saa nga ci ba tëdd bu tayee nga ñëw doxalee leneen loo xamante ni argument yi ngay indi xëy na boo boo yow boo seetaanee sa bopp sax sa yaram dina daw euh, dafa dafay doy waar tam ban gis-gis ñoom la ñu war a mën a am xëy na askan wi ñoom am nañu nu ñu leen gisee sànq yaa ngi wax ni ñu gisee politiciens yi même ñoom lan la ñu jàppee askan wi ba am doxalin bi quand même seen kanam ñuy jàppee askan bi mooy nit ñoo xam ne ñoom mën nañ leen a nax à tout moment ni ñu jàppee askan bi mooy nit ñoo xam ne ñoom bu ñu yoree alal mën nañ a defloo askan bi li leen neex xam nga politicien Sénégal dafa am lu ñu tuddee en psychologie dissonance cognitive maanaam man damay def li nga xam ne moom laa jàpp ne moo gën ci man tey jii ëllëg ma jàpp leneen et buñ ma laajee ma jéem a xool nan laa koy justifier par exemple di nga gis koo xam ne jege woon na président Ablaye Wade defandoo ak moom lépp di ko défendre. Mhm. et loolu dañ koy gis di ko ñaawlu sax ci ci plateau yi koo xam ne moom moo doon défendre président Ablaye Wade di défendre troisième mandat di ko défendre ba sax bi muy def euh, campagne am bi ko daaneel chaque jour yow yéen da ngeen daan def ay conférence de presse. Mhm. ñu dem ba kooku daanu dem nga àndaan ak nga wala nga jege ji ki nga xam ne kookoo jàmbaar la na moom parce que léegi moom moo nekk ci nguur gi ba pare nekkaat ci au devant de la scène ci kanamu plateau yi loolu du nekk exemple boo xam ne baax na donc ñoom noonu la ñuy def mais est-ce que crédible nañ finalement am na ñoo xamante ne dañuy wax mais kenn dégluwu leen. non actuellement Sénégal ñun problème boobu la am xam nga ñoom dañuy yaakaar ne dañuy nax askan wi mais askan wi xam na aussi parce que ñu ngi ko tuddee euh, jeu dupe parce que askan bi xam na ni politicien bi moom li mu yor moomu ko. lim may wax dafa ma koy wax rek parce que daf ko arrangé fi ñu tollu nii mais ki nga xam ne moo jub mooy ki nga xam ne am na valeur malheureusement askan bi tamit ci côté boobu dafa am benn attitude bu ambivalente. mais fa laa doon bëgg a ñëw lu waaye nangu xëy na teg ko ko dagan na parce que ñoom ki jub yenn saay wala ki ñu njort ni moo jub wala ki nga xamante ne amaguñu ay firnde euh, ci kon ay njuuj njaajam dañ ko fi gis xool koo xam ne xëy na ñëpp joxoñ nañ ko baaraam ñu jëlaat ko tegaat ko toppaat ko ba finalement yow doo xam ñoom lan la ñu bëgg. non boo seetloo fii ak 2000. depuis 2000 askan mi day fal ci am yaakaar bi mu sonnee ci régime président Abdou Diouf bi muy fal Ablaye Wade fekk na Ablaye Wade def na parcours opposition bu yàgg ñoom ñu am yaakaar ci moom bi ñu ko falee aussi euh, Ablaye Wade nan la demee bi muy dem du ay question moom liggéeyul. Mhm. parce que Sénégalais yëpp d'accord nañ ni Ablaye Wade kenn mënul woon campagne contre moom di wax ne noo def fi dara te loolu li koy firndeel mooy nii may waxeek yow. ñëpp gis nañ ses réalisation ñëpp gis ñu ngi teg seen bët grand théâtre bokk na fi artistes yi gën a fréquenté mhm. ñëpp teg nañ seen bët monument de la renaissance donte bi mu koy defar ñu bëri ànduñu ci woon euh, actuellement c'est mooy site touristique bi gën a visité nit ñi ñu ngi daw ci autoroute à péage bi nit ñi ñu ngi gis nouvelle génération de pont yi nit ñi ñu ngi gis yeneen ak yeneen ba tax na moom ci ay question valeur lañ ko fi dindee woon et question valeur aussi la ñu falee woon ki nga xam ne moo ko remplacé boo seetloo Macky Sall dafa am ñeenti mbir yoo xam ne ñoo gënoon am solo ci li tax nit ñi far ko du woon projet de développement yi mu doon dig nit ñi ñu ngi ko faloon ci dekkal ngor ñu ngi ko faloon ci la patrie avant le parti maanaam ñu jël euh, euh, dëkk bi jiital ko mhm. avant ñuy indi parti bi ñu ngi ko faloon ci la réparation des injustices sociales moo nekkoon premier point yoonu yokkati yokkate c'est-à-dire jiixi jaaxay ak xaajaleeg seen yi am ci biir askan wi mu dindi ko. Mhm. ñu ngi ko faloon ci une gouvernance sobre et vertueuse man jàpp naa ni en tant que euh, kuy xalaat ci mbiru nit slogan yooyu moo gënoon nekk lu duggoon ci bopp askan bi ba ñu amoon yaakaar ci moom waaye nag. bu ma doon xayma xayma mhm. damay wax ni ñi ànd ak moom am na loo xam ne dañ ci juum mooy li ñu tuddee indicateur de résultat gis naa ne seen discours lu bëri dañ koy accès ci euh, réalisation yi ci infrastructure yi man jàpp naa ni dañoo juum lu tax ñu juum mooy bu fekkoon ni loolu la kon askan mi doonul woon folli Ablaye bu fekkoon ni loolu la kon bi ñuy campagne pour folli Ablaye askan wi doon nañ gën a wax ay mbiru réalisation parce que fi ñu toll nii ci Sénégal enjeu bi mooy ñitu sénégalais bi ki war a jiite jubam euh, euh, sàmm kàddoom respecter askan wi jëfinu ngoram mais yooyu yëpp comme ni ko Thierno Alassane Sall waxee am na yoo xam ne mën nañ ci am ay jiixi jaaxa comme ñuy xool société bi ak askan wi par exemple am na loo xam ne mu ngi xew ci biir campagne bi mooy ñoo xam ne dañu dem ñu investir leen ci ay liste jàmbur ñu joxe seen kàddu joxe seen casier judiciaire joxe lépp li tax ñu war leen def ci liste boobu ci biir campagne bi am na ci ñoo xam ne sax ñoo jiite ay liste ñu boddu leen ñu ne ñoom ñu ngi rejoindre parti au pouvoir bi. Mhm. man bu ma doon xelal parti au pouvoir dama koy wax ni ñu mel noonu. da nga koy éviter ko demee nii Pape Samba Mboup bu ko président Macky wooyee mu liggéey te yaa ngi campagne donc yooyu yëpp dafay nekk jafe-jafe ci xelu askan wi leneen loo xamante ni tamit euh, xam naa waxtu yi euh, boor dinañ ma dóor ñi ngi koy coow fitna bi ñuy nemmiku euh, di ci wax gaañi ku ne di wane sa xadar ci ci anam yoo xamante ni du ñu ni guléet fitna ci Sénégal mais yaakaaroon nañ ne xëy na ak liñ wax yëpp mbir mi du demee nii tey jii dina am évolution solution quand fitna bi aussi fii ak politique Sénégal mi ngi doxee ni muy dox bu nit ñi gént fitna bi day continuer di ànd ak moom xam nga sax nit ñi ñu ngi jàpp ne euh, politique Sénégal euh, ci at yi yu weesu la commencé am fitna mais boo remonté ba 1942 ay ñoom Senghor ak yooyu. Mhm. da doon am fitna boo remonté ba 1900 année 60 yi début am na fitna yoo xam ne lu mat ay ñeent fukki nit ñàkkoon nañ ci seen bakkan. Mhm. li ko waral. mooy Sénégal politique dañ ko def métier politique dañ ko def yoon bi gën a gaaw pour am alal dañ ko def yoon bi gën a gaaw pour am alal yoo xam ne da koy bokk ak say ñoñ ba tax na boo nekkee au pouvoir yow li nga war a perte boo pertee pouvoir bi day nekk lu am solo loo xam ne yow dalay jaral lépp ba doo ko perte ki nga xam ne aussi day jàmbaarloog yow te teg eh, eh, rawatina année yi ñu jóg. parce que ah, à partir de 2000 dafa am ñoo xam ne dañoo mës a mos nguur perte ko xam nga ku mës mos nguur ko perte ko day d'ailleurs le mot nguur sax bi ñuy wax. tuddee. pouvoir bi nga xam ne yow askan bi daf la sas. Mhm. nga tuddee ko nguur ci olof rek ça pose problème parce que euh, nekk pouvoir du du du du pour nguuru. ci benn simili xalifa yaakaar am na ci ñi ñu janool soppi jikko ñun ñi nga xamante ne xëy na ñooy askan wi euh, xoolit li gën ci ñun ñu koy ñu koy def yaakaar am na. waaw bu ma xoolee ci nit ñi man sama yaakaar du sori du sori parce que li ma jàng mayuma ma naxanteeg askan wi jàkkaarloo ñoom ne leen dina am lu changé parce que Sénégal dañu seetlu ne ñoom ñi ñuy fal boobu ba léegi mooy ñi nekk ci parti politique coalition yi gën a mag et ay recomposition kese la. ña fa nekkoon yenn ay recomposition ñenn ñi ñoo jóge fay dem fële ñeneen ñi mës nañ mos ñeneen ñi euh, bañ fa nekkee liñ doon def moo taxoon ñu jëlee leen fa ndax sénégalais yi amuñu euh, habitude di voteel la euh, société civile yi ak liste indépendante yi bu fekkoon xëy na doon nañ essayé ci ñooñu mën na am ma yaakaar ay changement mais ñi nga xam ne ñoo fi nekk. maanaam ñetti coalition yi ñu jàpp na ñoom ñoo gën a mag. Mhm. Euh, ñu jàpp na ñooñu xëy na mbir mi mën na bañ a génn ci ñoom boo xoolee nit ñi leen composé pour la plupart am na ci ñoo xam ne euh, jot nañ mas nguur wala jot nañ leen a natt et que ñoom bu ñu bokkee ci système bi donte dañ koy bokk ak ñoo xam ne xëy na jub nañ parce que du ñëpp. Mhm. ñooñu di jub. dinañ nekk minorité boo xam ne du ñu mën a changer système bi a euh, tout seul tout ñoom kese du ñu mën a changer système bi. Mhm. loolu tax Sénégal aussi ko bëggee changer il faut ñu accès. Euh, euh, mbir yi ci valeurs yi et loolu il faut ñu former benn génération boo xam ne ñoom bu ñu ñëwee dinañ mën a yor réew mi beneen yoon génération boobu aussi mënta ñëw tant que amul njiit yoo xam ne dañu ñëw au pouvoir jël seen responsabilité jël pesanteur culturelle ak sociale yëpp teg ko de côté constitué wu en exemple parce que bu ñu amul ay exemple ci kaw du ñu mën a am ay exemple ci suuf. Mangok euh, psychologue conseiller la moom la ñu doon dalal Khalifa Babacar Diagne euh, doon jàngat jamono ji euh, réew mi ni muy doxee ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko seq rawatina waxtu wi ñu toll ay politique yeeg wi ñu jàkkaarloo ci wàllu jëfin wàllu doxalin wàllu valeur ak idéologie gërëm la bu baax Khalifa. maa lay fay bu baax. jaajëfal ko kon bu weer ci teewaay kon euh, rassemblement fii ci euh, Sicap la ko namm euh, foofee waxal na fa soxna yaay satu pay noo bokk yaakaar nag ñu mobiliser bu baax Zahra Iyane Thiam lëkkaloo ak ki nga xamante ne moo doon ancien maire bu Sicap Amitié ak ay responsable APR ñu ñaax jigéen ñi nag ñu vote Benno Bokk Yaakaar joxante loxo. ñi nga xamante ne nag il se sont perdus c'est la constitution qui dispose que référendum bi passé le président de la république peut saisir le conseil constitutionnel pour avis. tête de liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar bu Ndakaaru nag ci programme am lim su taxawal nag mooy benn terrain bu football bu mu jël jébbal ko xale yi ñaari tali yi. maa ngi woon fii ci ñaari tali ñaar tali mu amoon fa un problème bi jëm ci seen terrain de football boo xam ni ku xam histoire ñaari tali xam ni terrain boobu lu soxal population ak jeunesse su ñaari tali président Macky Sall joxe na ndigal nee na ma suba walaa muy jeex nañu jox ndigal directeur général des impôts et pour que fii ak juróom-ñetti fan population wu ñaar jot seen terrain boobu muy lu commune bi ko bu yàgg mais yàlla dogal na démb ci guddi la sotti tey ci bëccëg bi la ko président firndeel bi nga xamante ne vingt heures léegi mu jot meeru Yoff Abdoulaye Diouf saax nag ñëw fekk si leen foofu ca Sicap ñu jëm nag Parcelles Assainies ngir beneen meeting mangook kon euh, fële ca Tëngéej nag bari na it ñoo ni kon ña nga fa premier ministre moom ci àllarba ji la ko fay xaar euh, foofee danañu ko fa xaar ca la ñu fa digg woon ci 2016 ci conseil des ministres euh, décentralisé yi yeneen i coalition it ña nga fay yëngu demee ni kon convergence patriotique kaddu askan wi Ousseynou Thiam Bira Diagne ñooñu fa la tête de liste nationale bu coalition Benno Bokk Yaakaar di premier ministre Boun Abdallah Dionne ñu koy xaarandi àllarba ji fii ci diwaanu Tëngéej nag ay kàddu jib ci chef de parti pour le développement et la renaissance du Sénégal bokk ci lii di mouvance présidentielle bi nag nee na ñi ngi xaar ci nguur gi digg yi mi fi digg woon ci conseil des ministres décentralisé bu mu fi amee woon. et puis aussi mu wax ñu daal. ah fu ñu tollu si engagement yi ñu fi jëloon bi fi bi fi président ñëwee def fi ñeenti fan fii fanaan fi ñetti ñetti guddi ak ñun ñu arrêté plan boo xam ne un programme d'investissement boo xam ne ba léegi xamuñu fu mu nekk xamuñu kañ lay kañ lay commencé. loolu la hmm? am na si te baaxul. te baaxul parce que aussi euh, yaakaar bi dafa rëy te état rek nag moo mën defar tëngeej. commune yi fi nekk amuñu moyen pour defar Tëngéej. gis-gis bu ni mel nag la kii di tête de liste bu coalition convergence patriotique kàddu askan wi am. ñëwoon na fi def fi ñetti amoon nañ si yaakaar mais bëgg naa daal président Macky Sall comme moom la yàlla jiital. boo xoolee Tëngéej amatul ay espace yaa ngi dégg maanaam màgge na fu ne ñu bëgg nag la nga xam ne ni nag mooy inondation yi. mooy santé bi mooy école bi ñu jàppale leen daal vraiment daal ba nga xam ne ni bu ëllëgee dem Dakar daal ak ñëw Tëngéej dafay mel ni benn. cib caravane bu ñu amal nag ndaw yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar ne nag projet yi ak réalisation yi Macky Sall def fii ci diwaanu Tëngéej nag tax na ba askan wi war na koo wooteel. weddi gis bokku tey yaakaar naa ni opposition bi bu gisee fii li génn ay ndaw tey si Tëngéej xam Tëngéej amatul laam-laamee gañe nañu ko ba pare. mu doon ñu fare ci li di coalition Benno Bokk Yaakaar nag di waajal bu baax a baax li di ñëw premier ministre fii ci département bu Rufisque. yéen kay yàq euh, Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ngan gu yàqu gunge bu sori defaru ko nee leen président Macky Sall waa këram yaa ngay rayante ke fetalante ca Fatick. ubbi leen vox populi Wula Ndiaye di rakk ci ministre Mbagnick Ndiaye responsable APR ca Ngaye Xem moo bëggoon a defub meeting ca commune bu Jareer fief bu Thérèse Faye Diouf waa Jareer ak ñiy jàppal tànk Thérèse Faye Diouf jug ne du fa amee la ñu waroon a meeting meeting nañ ko bu noppi meeting ba Wula Ndiaye bëgg a def foofee du luy defar yàq ko tax a jóg ñu nekk ca di jàppante ba Wula Ndiaye génn fa fetal jot faa soqi ñaari bali fetal vox ne ñu ca jàppante ba rek am na ñetti militant yu APR yu ci amee ay gaañu gaañu ca ñooñe ci ay gaañu gaañu mitti na lool journal bi tegal fitna gi am ci campagne bi mi ngi bëgg a jéggi dayoo ndax ci Géejawaay it gaa yi Alaaji Malick Gakou yeek yu Alioune Sall yi ñoo fa jàppante lu rëy ba lu ëpp fukki doomi aadama jële cee gaañu-gaañu Abdoulaye Wade gaañati na Macky Sall yëral xët mu njëkku Les Échos Abdoulaye Wade nee na Macky ragal amul fit boqat la su ma ñemee teg naa ci taabal ji juróom fukki million ngir mu ñëw débat ak man loolee journal bi nañ moom Abdoulaye Wade mi ngi ko wax démb nekk ca Fann Résidence ginnaaw mars bi mu bëggoon gi ne am na téeméeri at yu juróom-ñeent maanaam 91 ans waaye dama koy ndamoo ndax ñi ma maasal ñëpp duma seen morom doom ju góor ji di Karim Wade ma ca gàddaay ga bàyyi ba di Abdoulaye Wade ne su ma neexoon mu ñëw ci réew mi te bu Karim Wade bëggoon a dugg ci réew mi di Sénégal amul kenn ku ko fi mën a tee dugg li mu bëggoon a dugg démb moom Abdoulaye Wade mu di doxee ca place indépendance ba ci ministère intérieur ngir la carte électeur am mars ba Médina la yam fa la ko waa police bloqué Abdoulaye Wade ne mars waaye am nañu ci ndam Le Quotidien mel ne ku naan ko yàlla bu ndam di rey Abdoulaye Wade Médina la yam fa ko police bloqué Wade gisul Washington nee na nag nag su ko neexoon moom Abdoulaye Wade mu ne gars yi nañu dox dem palais ba nee na it moom Abdoulaye Wade amul adversaire ne Macky Sall mi mu ko séqal bokkat la arrêté Ousmane Ngom bi waral coow li góor gi ne gaañ yi dañu koo déggee ni leen neex di ko doxalee nu leen neex la si ne nañu police moo bloqué Abdoulaye Wade réew mi quotidien ne ko Ousmane Ngom kay ngay wax Ousmane Ngom ak arrêté bi mu fi bàyyi moo yàqal Abdoulaye Wade doxu ñaxtom ba anki dina kay nañu Abdoulaye Wade ak li mu bëggoon démb mu di dox dox bi yi ngir ñu jox ko identité yi waa na nangu defeetam ndax gañe naa bu nuppi l'observateur nañu doxum ñaxtu ba donte antuwul terewul am na lu mat fanweeri doomi aadama ak lu teg yu bokk ci gaa yi Abdoulaye Wade yoo xam ne takk der yi teg nañu leen loxo l'observateur xëy ci xët mu njëkk kàddu Abdoulaye Wade mu fay wax naan yàggaguñu ci guerre ci xët mu njëkk Le Soleil mu nañu fa ministre intérieur di Abdoulaye Daouda Diallo dafa war a tekki ndombal tànkam démissionné ndax bu ñu la dénkee lëf nga tëlee ca da nga koo war a delloo libération xëy mel ne kuy kokkalee ka kenget law ka kaañoo Abdoulaye Wade ndax nee nañu moom Abdoulaye Wade miy wër di wax dentité ba mu mu génnee yàgg na moo ko jëliwool dantité baa nga ca commission ba tëddi nelaw te juróomi fan kese moo des suñu digg ak woote yi wàdd li mu woote woon démb mu di ab doxum ñaxtu libe gis ne dootu ko gaaw a dolli ndax gaañu topp ñu ko ci vox populi ne góor gi da doon bëlëfe da doon jéem a tuur askan wi lëndëm li ray pël yi mànga nag yi indi coow li mu di dantité yi génn l'observateur xëy na ci génne lu am solo bi leen bi juróom benn million ngi électeur ak ñeent fukki junni ñoo bind juróomi million ngi carte ak juróomi téeméer la retiré maanaam 70 virgule 36 pour cent ndakaaru nag moo ci gën néew la lu ñu retiré ci carte ndax 51 virgule 41 pour cent la ñu retiré gars yi gaal loon defar ak joxem d'identité yi l'observateur xëy nañu leeralal jéego yi ñuy def ngir d'identité yi mën a jàppandi commission yi tolloon ci juróomi téeméeri commission ak juróom benn fukk léegi yóbbu nañu ko ba ci junni commission ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent jël nañu juróom ñetti téeméeri wakaateer ak ñaar la ñu fare nañu fare ji ci mu njëkk journal Les Échos xooli la Boubacar ga ca podoor benn garde forestier moo fa doon dàq benn wëyu wëyu bi daw ba dugg ca dex ga garde forestier bi moom it soobu ca dex ga ngir ne day dàq wëyu bi waaye dafa mujj lab ca dex ga ngërëm ko bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye jaajëfal leen bu weer yéen ñu doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi rédaction bi incha allah dana dellu si 19h30 20h ci yeneen i xibaar ñaanal leen ngeen yéen ñu jàmm ak programme télévision Futurs